salaamaaleykum mbokk internet yi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu wér di nuyu kullum kuy safoo SBT rek nuyu naa la bu baax baax ziar la jox la sa wàccuwaay bi seen émission seet si mbër nag nii tey ñu seet si woon xale di nuyu kullum kuy safoo SBT di ziaraat ñëpp di màggal ñëpp ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñaan way daw suñu borom yéeram leen te xaaral te àjjana fiir daw si ya ñu feebar tëdd si ndax liberté dara dàq muy waa 4 ak waa 10 waa 21 su ma leen fàtte leen bëggee bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér a wér ba peese maa leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér a wér te seen émission seet na ñëw si xale seet si ndaanaan di yaakaaru Pikine te ñu fekk fi mu duñ ko bàyyi duñ ko bàyyi mu nuyoo mbër nuyu maa ngi lay fay. naka tey. waaye sant ñu ngi ziar bu wér waaw. waaw la nga nuyoo. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si nant bi sant suñuy ñaari waajur di nuyu suma papa di ñaanal suma yaay na ko yàlla yërëm te xaar ko àjjana ak képp ku tëdd suuf ñi caabi fii te ginnaaw yàlla na leen yàlla delloo si bañ nekk si jàmm te bañ a def leen yóbbuwaat foofu. di nuyu waa pikin bu baax a baax a baax di nuy suma grand yi suma xarit yi ma toogal yëpp di nuy suma géwél bi di nuyu waa Pikine bu baax a baax di ñaanal sama papa fële mu nekk si Italie yàlla defal ko fa wér ba si waat fii. di ñaanal waa Pikine ñëpp jàmm te ñun Pikine lañ am Pikine lañuy ndama moom lañuy tiitaroo di nuyu suñu grand yi Eumeu Sène Boy Ama Baldé ak bépp mbër daal di nuyu suma waa écurie Père Baba Diallo suñu coach Pala xam nga di nuyu waa écurie bi yëpp nag suma limee juum leen ñaanal ñoom ñëpp ndam tonnerre Mame Balla Cobra ak boy yëpp nekk suñu ginnaaw ñëpp yàlla defal leen ndam daal di la nuyu bu baax di nuyu sub bi bu baax a baax a baax a baax SBT maa ngi leen maa ngi leen siyaar bu wéera a wér di kontaan si yéen waaw. nga xam kii wax mooy kan. waaw kii di wax mooy njaga Thiam alliance Thiatou Boson fils fiis de pap Diop mbër Boson waaw di doomu champion sam papa di champion d'Afrique xam nga ñuy doomu Pikine tamit gëm li ñuy def bëggu ko. yàlla duñ dimbali ñu ànd seeg suñuy garant ñuy jàppale ak waa Pikine daal. doomu champion di doomu suñu papa lam def est-ce que di ko def. waaw bëgg nañ def lu ko raw parce que tamit ñun moom suñu papa moom champion d'Afrique la te defaguñ te nekkaguñ champion d'Afrique mën naa ni mais bëgg nañ nekk roi des arènes ndax xëy na jamono jooju roi amul woon suñu jamono nag tombeel nañ roi des arènes. kon ñun ñaan nañ yàlla nekk roi des arènes parce que ñun suñu papa moom lu mu def si làmb moom tey jii damay romb ay mag sax ñu naan ma sa papa lu mu def si làmb mënoo ko def si làmb man nangu lool nangu rek xam ne tamit affaire bi moom yoon la boo xamante ni fulla ak fayda moo la jëmale si kanam quoi ak déglu say waxi waajur ak say famille am di jàmm daal. Ndiaga ban dugg si làmb mbapat ban année. bi may dugg si mbapat. mbapat ay deux 2013 boo xool laay dugg si mbapat quoi. mbapat. 72 heures Pafal laay bu njëkk boo xamante ni si nii si saal sax lañ ko bëree woon. Euh, saalu ñoom ama ci saal bi ñu tegoon fa ñu tegoon fa saaku ceeb ak ay meew affaire yooyu noonu mais teg dañ dem teg 200 quoi jamono jooju teg 200 waaw jour boobu laa njëkk a takk ngeem. boobu yaa ngi fa nekkoon. man ak booy mbëru Pikine yëpp tey booy yi bëre yëpp si lañ nekkoon. am na favori yoo xam tey jii ngi si làmb dekk si yaakaaru Pikine est-ce que bokkoon nañ si tournoi yi. waaw bëri nañ booy ñoom Jokom Pogola booy bëri nañ boo limee jum booy bëri nañ woon génération boobu yëpp si lañ nekkoon ñëpp bëri woon nañ après jour boobu maa jël tournoi bi. si kaw si kaw Jokom laa ko jëlee. Jokom si moom laa jëlee jour laa njëkk a si tournoi jamono jooju rek 200 pour ma amoon ko problème la ma ñëw ñaan ko sama yaay sa yaay na ma non lu mu la waxoon si bëre munoo bàyyi bëre bëre dafa metti dafa bëri coono sa papa li mu daj si làmb ñun luñ si daj bul bëre ndax bëre dafa metti te effectivement ndax man mii moom su ma seyoon sama doom du nekk mbër parce que coono gi si nekk làmb dafa dafa bëri coono te pour ñu jàppale la foog nga dégg daal yi te xam nga ñun ñii yëpp ay avenir lañ kon war nañu mën a jàppale quoi. ba ba ñuy doon champion waaw parce que ñoom. nga daan fa Jacob final. Mhm, final waaw. fan nga fan nga ngemb ma takaat ngemb fii laa takkaatee ngemb euh, zone bi ñaan zone bi ñaan asem ginnaaw mairie bi laa takaate ngemb daan mbapat waaw. non non benn combat nommé. man ak Dibiata Dibiata ma daan ko foofu. après may dem nag fi commencé di bërentu di dem di bëre fu ne dem naa fa daal di bëree moom. ba ni ma demee nag xam ne daan nga leen si mbapat à part Jacob ñoo xam ne tey jii ñu ngi wane seen bopp si arène bi wala ñoo xam ne daan nañ la ñu ngi wane seen mbapat amul ku ma si daan benn combat nommé Pikine kenn daanu ma fi. waaw Pikine da génn naa essayé génn naa fii génn naa dugg naa dugg naa dem naa parcelle géejawaay bëri naa marché marché marché jeudi. man ak Boylo. Boylo foo côté zone boobu la dëggee de mais loolu lu xabaar yow yéen yàgg te man après kooku déggaatu moo si làmb yi sax. yow nga fi daan ñoo xam ne ñu ngi prouvé si arène bi xam ne ñii daan naa leen ba pat. kii maa ko daan ba pat euh, nu mu tuddati euh, général Malika. général Malika daan naa ko Ngaye. fan Ngaye Ngaye laa ko daan. final wala demi final wala quart finaal final. final général Malika. loolu maa ngi ko soog a dégg. tournoi yi kay ñu ma si daan kay su ma la ko limalee da ngay jommi sax. léegi may ma si quatre yoo xam ne tey daan nga leen te ñu ngi ñu ngi lëmbe làmb ordinateur daan naa ko. daan naa ko daan maa fi mu laa laa ko daane. si tournoi deuxième tour. waaw deuxième tour mu jàpp bopp bi. Pakala man ak ñoo dem quart de finale après Dour Sané daan ko man ma dem finale. Pakala Pakala Mhm. yow nga daan kan man benn waay laa daan bu njool demi final jour boobu tamit si laa daan Mamadou Ndiaye. xam nga ki nga daan demi final kan ki ma daan demi final xaw ma ko. xaw ma ko. Toubacouta nga daan demi final final la Doudou kon bu njool la daal. waaw la la Doudou moom la. parce que xam nga gars yi doo nand. après yow da daan rek après ñu wax la ni yow yaa daan diw yaa daan diw. parce que ñun duñu ay mbërum ba pat quoi. ni ngi ci calculer Mamady Ndiaye rek kon Mamady Ndiaye ku ñu ràññee la moo tax nga mun ko ràññee. waaw voilà parce que boo ko daanee yow kooku da ngay xam ni kii bërekat la champion la boo ko daanee rek waaw da nga koy nongul xam ni kii champion la. waaw waaw mais loolu làmb loolu la sax ndax euh, Ndiaye Tine tamit fekk naa ko Medina tournoi Medina waaw daan ñëpp boole ko si moom moom deuxième tour laa ko daan Medina perkat yi waaw bu perkat yi dem tëgg bu perkat yi dem tëgg sax. mu yàq parce que làmb ji jour bu ñu njëkkee ñëw rek. gars ne doo bëre parce que ñu fi nekk yaa leen mën perkat yi moo yëkkati 5000 francs jox ma ne ma demal nga ñibbi paasal nga ñibbi mais samedi nga ñëw gars nag lañ teg fii ñu dem làmb ji ma dem quart de làmb ji toj. comme te booy Medina yi ñenn kii ñu daan fa ni ñi xam nga rek gars yi génnee fa ay. kii fa nekkoon boobu man Ndiaye Tine bëri na ay mbër de Bébé Diène ay ñoom kii Boy dakaar bëri woon na ay catégorie génération bi bëri woon nañ foofu mais gars yi yëpp ñëpp dañoo ñaaxoon nag làmb yu bëri maa jël maa leen maa leen daan di sant yàlla nag quoi parce que ay xale lañ gëm nañ lu ñuy def duñ ne doomu mbër lañ rek dañuy dem tëdd nelaw parce ñun bu ñu bëree doom champion lañ bu ñu bëreewul doomu champion lañ parce bu ñu rombee mais si nangaan sàmm laa mujjee dem. waaw laa mujj ma fa jël man ak kii àndoon. su tournoi man maa fa nekkoon ñoom wës jàmbaar ak ak kii Mabri Ndiaye sax ñu ngi foon bëri na woon ay mbër quoi ma maa jël làmb si kaw benn benn jarbaatu Yékini benn jarbaatu Yékini si laa jël maa ko jël si ah, kawam. bu dee bu ndangaan nekkoon Mamadi Ndiaye. Arabas ku ñëw Arabas Mbay Mari. dëkk Joal. waaw. waa di nuyu waa Joal bu baax a baax. ñoom El waa kër maa ngi leen di siyaar ñoom Sangomar maa ngi leen di béyee ndax su ma ñëwee war dañu may taxaw mais mel ni dëkk moom wax dëkk kon moom la. waaw moom la kon. làmb jooju maa ko jël voilà te ñun mhm. ay doomu champion lañ mais dañoo nangu luñ doon. parce que dañ naan la doomi forom ñu ne doomi mbër jàngil kon loolu ñun dañ ko war a préparer xam ni yàgg-yàgg des nañu ñam kon ñun lépp lu ñuy def rek dañu war a def fu la def si fay daal parce que sport làmb yàggul moo tax ñun lu ñuy def rek dañ si def fu mu jeex quoi. ngeen dégg Ndiaga Thiam nekk champion nekk yaakaaru Pikine nga dégg fi mu déparé si Mbapat ndaanaan yi mu fi bëreel Mbapat ku si mel ni général bu Malika ku si mel ni Doudou Sané ku si mel ni ordinateur ku si mel ni Mbari Mbari Arobase ku si mel ni njaaytit feesee mbapatu perkat yi ndaanaan yooyu mu daan leen ci làmb léegi nañu tourné ñëw si mbàccum gerte gi si lutte avec frappe mu def fi palmarès bu doy waar doy waar nekk référence si Pikine jël boppam dippee ko caatu pikin lu raar deful taaw deful da caat la def kon moom moo mujjee juddu Pikine tey dañ koy baay ñu ñëw si lutte avec frappe si mbàccum gerte gi caat sa premier combat arène yàkkan la sama premier combat arène maa ngi bëreeg euh, Garga Junior Garga bu nekk yëmbal moom laa njëkk a bëreel ki yëmbal mbooloo moom laa njëkk a bëreel sama premier combat ma daan ko waaw deuxième combat nag yaakaar ma bëreeg junni Demba Diop ma daan ko junni waaw ma daan ko ñëpp maa leen njëkk a daan ñoom kenn ñoom maanaam ñii dañuy am 4 combats 5 combats ñii 7 ma daan leen ñëpp maa leen jox defet bi nga ju nga daan garga daan junni mu nekk sa deuxième combat sa troisième combat nag yaakaar sama troisième tali la bi nekk grand midi waaw nekk grand midi daan ko sa quatrième combat ma am euh, saa boqal saa boqal di ñaanal yàlla génnee ko fële indiwaat ko ndax champion la jàmbaar la quoi ma daan ko foofu moom tamit sa sama cinquième ma am ma am Jawdin doomu Souleymane jaw combat boobu bëri woon coow nag foofu laa doon xaaral nga egsi fa ngeen nekkoon ñaari doomu mbër boobu ñu xool kan mooy dem si yéen ñaar coow li bëri ñenn ñi ne Ndiaga waru ko woon jël ndax booy bi li mu def si làmb Ndiaga defu ko ko loolu bëri woon lu tax nga jël ko. waaw parce que ñun dañoo gëm suñu bopp ba koy jël Modou Mbaye bi ma tasante ak moom dafa ne ma booy am nga combat de booy mooy borom top 5 ma ne ko ah, waaw ma ne ko Modou du yàgg sax. parce que ñun lu ñuy daj saal moo gën a métti li ñuy daj ci ay arènes yi ñun dañuy yenn saal lu métti parce que ay mag la ay mag ñooñu jiital chaque jour xam nga te doo magum jëm du bàyyi yiteem bàyyi lépp joxoo ko dépense joxoo ko mu ñëw di la taxaw da ngay def yoo yoo fi amul fula quoi waaw te da ngay def fula def fayda quoi nekk si si liñ lay sant quoi moo tax boo ñu gisee nag mun nga ñu xeeb quoi parce que liñ ñuy yen moo bari boo ñu gisee dañuy xeeb parce que liñ ñuy yen dafa métti torop waaw ñu sant ci yàlla nag parce que yàlla moo ñu teg si yoon boobu dañuy nangu coono moom góor lay dal ko lu métti góor lay dal xam nga ñu entraîné si préparé ko si nu ñu daan préparé combat rek ndax ñun ni ñu préparé combat moom noonu la ñuy préparé muy la fayda ma daan ko. cinquième combat cinq victoire. waaw foofu cinq combat cinq victoire. sixième combat. sixième combat ma am tampon ndaw. tampon bu Double moom laa am fii géejawaay ci combat Taphatine bi Yékini Junior ma daan ko fa woon tamit. ma nekk si Cargo euh, bu Birame Ndiaye waaw moom laa am sama septième combat. ma ma fii sama huitième combat nag si laa dem bëre nag kii ñu doomu Mouhamed Ali. booy mbelax. combat boobu dañ ciy taxaw seetlu. combat bi wa diggante bi yàgg na. adversaire yi di wër-wërloo tey nga jël kii ba nga jël kee lan moo tax njaga jël booy mbelax. lan moo tax njaga jël booy mbelax xam nga booy mbelax kii da koo daan. Euh, nu mu sax saa bokkal da koo daan. ma toog corona ñëw fekk ñu ngi ma dem doxal sama combat man ak Njaay Ndiaye Tine ñu dem ba si biir mu delloo avance bi ñu taxawalaat combat bi deuxième fois affaire yi am 15 jours ñu war a réaliser combat bi promoteur bi woowaat waat sama ménagère Paal nag expliqué ko ne ko ah booy bi de ay mbokkam expliqué nañ détail ñëwaat nañ fii nangam nangam avance bi baa jox ko booy bi Paal nag avance bi booy bi de lekk na si quinze 15000 affaire yooyu noonu mu ne ko kon garaawul maa ko may affaire yooyu noon na ko jël garaawul. booy bi borom baax la joxaat ne ne ko lu si des garaawul après mu delloo ko loolu quoi mais après booy bool bool yi su ma leen suñ ma rombee wala ñu jaar fi dañ naa waaye gars da ngaa delloo avance Ndiaye man leen ku ma daan barki démb nan lay delloo avance am. nga ne koo daan barki démb. marul seconde ma daan la barki demb léegi nan lay delloo sa avance. xam nga moom ñëpp nee nañ yow yaa delloon avance bi. non waaw xam nga rek gars yi moom seen i mbir noonu la parce que bool bool bi ñu ma gisee loolu man leen yéen. lu preuve ngeen bëgg dangeen di woo Ndiaye Tine ma toog mu toog ngeen laaj ko kan moo delloo avance ah moom mun na bañ a mais ay mbokkam ñoo koy delloo. man moom mun na bañ a delloo avance parce que tey ji boo ko laajoon mun na ne waaye fan laay delloo avance détail mais ay mbokkam mun nañ ko delloo parce que promoteur bi mu ñu woowee moom loolu la wax ay mbokkam la ñu wax kon moom moo ko ay mbokkam ñooy nekk. kon bu buñ delloo avance bi moom moo delloo avance bi rek parce que tamit man buñ mo ñëwoon di ma jox avance buñ ma ñëwoon di ma jox avance tey jii man maay naan bëgg naa wala bëgguma yaa ngi dégg buñ ma ñëwee di ma jox nag naa woo su may gars yi neen ah combat nangam nangam lañ may jox ñoom liñ may wax mooy mun nga ko daan wala mënoo ko daan man leen ku mënul daan ci làmb amul ñu ne ma jëlal ñi lay deme mais mosuma delloo avance mbër. ñoo taxaw na si diggante booy melax coow li bari booy melax ñëpp ne booy melax moo la mën moo la suti taay da duma d'accord gaa yëpp man combat bu ma jël noonu lay demee combat bu ma jël dañ naan am nga combat dañ lay duma dañ lay daan dama leen di nangul seen wax rek ba arbitre ne far rek parce que li ñuy def ñun xam nañ ko parce que mënuñu nekk doomu champion juddu fekk ngemb li si ëtt bi ba pare di waaye di mënul nekk parce que lu mu métti métti am na luy daw suñu deret bi wallahi azim tournoi yi gars yi di dem nii gars yi mënuñu mais ku nekk da koy bàyyi lim moom. parce que nit ñi tey làmb séeréel kon yàlla bu defee ñu am bëre simple am bëre dóor yenn yi mun nga ko bàyyi ak ñenn ñi leneen li pour le pour ñeneen ñi moo tax munuñu jàpp tamit du soo si lenn li ndax bëggee wala dara ndax parce que ñu ngi contact ndax ñooñ foofu bu ñu fa demee dañuy compétir ñun suñu salle dañuy computer chaque jour dañuy bëre ñun chaque jour salle bi da ngay bëre par force parce que ay mag a fa nekk. bëreel lañ lay sant boo ñëwee sooy di fa soow ñu ne la eh fii du place soowukaay demal fee nga bëre boo bonee xool doo fa nekk kon ñun muy bëre simple muy bëre dóor luñ ci luñ ci bëgg a def dañ ko ci def yàlla dimbali nañu am loolu nekk si deret bi di daw nag quoi. dama laa laaj dama laa ne la njaga sa diggante ak booy melax nga ne ma bu matee une damay bàyyi. waaw li ma mën la nekk sama sang signature bi boo déggoo maa ngi naan ko ku ma bëreel boo ma rombee ne waajaa ngi nel di dem lu ma gëm la lu nekk si man waaw xaw ma xaw ma nii quoi man fulla laa xam fayda mu jeex foxos joxos waaw man foxos joxos rek laa xam noonu lay bëree est-ce mës naa bëree une minute. combat bi mu nekk combat neex bëri xeex bëri bëri ay combat bi ñëw. prip vite fait BF. pour parce que xam nga non non parce que nit ki boo ko mënee nga koy da ngay jeexal won ni carrément ki maa ko mën. yow yow yaa mën booy melax. fukki junni yoon keneen ku dul booy melax sax maa di ko wax nag mu góorgóorluwaat làmb moom des na kanam parce que daanu taxul nga bañ yéeg parce ñi daanu nañ fi ay 10 combats yéeg nañ làmb noonu la. man li ma la a laaj fan nga wékkoon ne combat bi du mat une minute luñ la déyoon la wala lan la. ñi daan ñoo mën booy melax. yow ñi ngay daan ñoo mën booy melax. fukki junni yoon boo ma gisee nii dama ndaw nii si kii mais ñu may daan ñoo ñoo mën booy melax fukki junni yoon xam nga déggoo li mu la am na lu nekk si ñun quoi mu nekk suñu deret te ñun ay doomu champion lañ ñun buñ bëree dañoo war a bëre buñ. doomu champion la. mais bokkul génération ñoo bokkul sax. sama bokkul sama papa moom ak papaam bokk fekkante wuñ si ñoom jamono ñoom Tyson lañ fekkee papa. waaw Mouhamed Ali suñu papa la mais jamono ñoom Tyson lañ fekkee. mais sam papa bokkul ak ñoom génération sam papa moo war a mag Mouhamed Ali kon bokkuñu génération quoi te sama papa danaan dem fu di bëre ji. moom li mu wax sa papa moo ak papaam waaye moom moo la mag moo la mën. moo mag. waaye la mën loolu waaw mais mu mën mu mën ma pare ma daan ko mu mën ma pare ma daan ko. lu ma lu mu la wax loolu laa confirmé si man laa nga ma wax. da nga ne ma mën na une minute. ma ne la combat bi estati la mat. combat waaw bu fekkoon waa tey jii waa WhatsApp dañuy fay man dañ may fay bu ma doyal estati la loolu ku ko dugal estati ya ngay fayee ko. 7 secondes 7 secondes. 7 secondes mooy estati. ah kon kon man de loolu mosuma ko see xam. kon 7 secondes mooy. boo xëcc ko rek boo xëcc di ko dugal sax doo fa nekk di xaar affaire bi tourné yàgg. day gaaw fët fa da ngay dugal rek mu dem. xanaa bu ñu ma ko joxoon ma dugal ko esthete yi. Eh, eh. déglu ma déglu ma. jaga yi dañu laa jox ndekki lu baax si gi sa yëgu ma ko. saa su ne dañuy ndekki. moom ndekki yi daa bëri mu ta boo ta lu ñuy ne di laay. Franc war nañ mën a bëre di combat la def. 10 def 10 la def daan mënoo leen jàpp. yaa ngi dégg Tyson 2 xoolal ñi mu daan daan na parcel ñaari personne da moo tax mu wàcc bëre Franc parce que làmb moo demee noonu Franc li li Tyson 2 bëre moom bërewu ko. Tyson 2 def na def xaw ma nag ndax am na defet xaw ma amul defet man wii combats laa def. kon làmb est-ce que boole nañ wala boole ñu rek. ah jaadu kon yoon la ñu bëre. yoon lañu ñu parce que làmb moo demee noonu. lu sax nga ne Franc. waaw ah, parce que buggumalu lu yomb xam nga tey jii nii maanaam sama génération dama dul seen morom quoi sama génération man maa dul seen morom. sa seen morom. du ma seen morom man ak ñoom du joonu làmb sax. keroog bi nga daanee booy melax. damaa dégg ñenn say supporters daane grand combat bi ku si daan bëgg nañ waaw ñoom ñëpp xam nga ñooñu mën a ñoo bokk benn benn kii ndax ñu ma si làmb. du leen laaj parce que raw ñu ma si làmb. gaa yi gars raw ñu ma si làmb ba ma leen teg ko wala ma leen di kii man sama bët fu ma ko teg du samay génération boobu man ñooñ du may seen anniversaire ku ma si jàpp dama lay defaral fët fët du yàgg. sa bët fan nga ko teg. sama bët déggoo li mu la Franc moo toog ni Pikine amul kenn ku ko mën a daan. loolu la wax loolu. moo wax loolu nee na Pikine amul mbër bu ko mën a daan. léegi waxal ak moom. Franc yaa may dégg xam nga ma xam naa la nga ne Pikine amul kenn ku la mën a daan boo ma jëlee mu duma la daan la. ah da ngeen mës a laale. non non dañuy teye tournoi yi mosuñu bëree tournoi nag mais day ñi moom day ñi muy daan dama leen di daan. waaw li si li simple li frappe. bëre dóor déggoo lu mu la ñaari laa mu ne fu ma foo ma si fekk ma ma waxee barki sëñ Bamba dama lay rang sa pipa rang Franc xam ne lu mu ko ah ci ñi gëm-gëm parcelle ay mbëru ndaama ñoo fa nekk amul mbër bu ma fa mën a daan yéen waa parcelle laay waxal. ay mbërum ndaama man mbërum ndaama du ma yeb mbërum ndaama du ma fontoo sax laa la wax parcelle amul mbër ay ñaata champion am ñu ne am Modou Lo ak ay ndaama lañ mënuñu ma daan seen patron sax mënu daan. seen man mbërum ndaama du ma daan man maa la wax loolu. loolu yaa que li ma li nekk si man ma xam ko di liggéey mbërum mais voilà noonu la deme ñun suñ papa déggoo li la dafa def lu bëri si làmb yaa ngi dégg te pourtant gandul woon rëyul woon mais dafa amoon sañ-sañ te amul benn mbër booy toog fii si ancien gloire yi mu na daan naa sam papa daan na sa sama papa te sam papa daanu ko sam papa ku ko daan daan la wallaahi ku ko daan daan na la mbéygéey père mbéygéey moo xam sam papa man sampion la barki alxuraan mais ñun tamit dañoo ñëw gëm suñu bopp gëm lu ñuy def dañoo bëgg lu ñuy def ñun te xalaat si séntu fu sore sore sori sori sori sori gis naa loolu bu baax a baax a baax te effectivement loolu ñuy wax noonu looloo li am mbër bu ma bëreel laa la wax ñu suñu làmb taxaw préparel xam ne damay dal sa kaw xaw ma yow looy indi sama yoon nekkul si li nga yor bugguma li nga yor bul ma may ñaanuma la teel li nga yor man li ma moom dama koy jël par force. su ma déggee sa da nga naan dara ba mu ci bokk doole. noonu la demee mbër bu bëreel daal yow préparel xam ne damay dal sa kaw. waaw ay naataangoo ngeen. xam nga làmb tey jii dafa toll foo xamante ni si nii nit ñi ñooy ñooy xool kii xam catégorie bu mu bokk parce que tamit man mii nii la moo tax may wax Franc li mu wax Pikine man Pikine moom laay tiitaroo man Pikine laay ndamoo sama lépp Pikine la fii laa juddoo fii laa yeroo man paasuma sama papa fii la juddoo de non non maanaam soo déggee ma ne la paasuma am na ñoo xamante si nii dañuy jógee fu sori ñëw dallu si Pikine nekk fi waaw non amul fi Pikine moom booy fi nekk yu bëri fi lañ juddoo moom. kon léegi su ma déggee sax daa paas. Franc daa paas <laughs> ay Franc yëpp dañoo paas parcelle bëri nañu paas de. paas paas liñ dugg wax de waxu <laughs> amul combat. amul taxaw na. Ah, taxaw na. moog ambulance. moog ambulance. taxaw na man daal mbër bu ñu ne moo fi gën a dëgër bopp moo ne moo fi mën nañ ma ko jox suba tay bi ñu ma ko joxoon léegi. daw dóor ko léegi. ci si doomu mbër. lamb boole laa war laa boole laa doomu mbër. waaw man man moom yooyu garaawul si man. parce que man <laughs> yooyu moom mooy loolu quoi mooy bëre yow du ma jàpp ni sax tey tey tey tey ma bañu ma mbër yooyu parce que xamul da maanaam. man li ñu naan jaam kii wala mënoo rek dañ jëflante ku ne xam kii moo mën man bu ñu kii moo mën si làmb yi ñu may tëkkaleeg moom dama naa la lañ laale bu ñu laalee léegi ku nekk xam borom foo féetee. kon déggee sa wax yow. il est nga xamee woo janj ak joor. barki Serigne Touba man sëñ Bamba laa gëm aw ma lenn lu may dawal mbër aw ma lenn lu may tiital mbër njaaytin bàyyiwuma ko sa xel li jëntiw moo xaw ma su muy dund maa ngi bëre maa ngi dund sama dund Franc li jëntiw moo xaw ma lu muy dund man sama bopp laa gëm. Franc li mu wax moom dafa man dalaa naqari. dafa maa naqari parce que xamul tax ñun doom Pikine lañ man bëgguma ko néewal nit doole Franc dafa keroog baat boobu mu wax jaatu néewal nit doole la mun ne Pikine amul ko ko mën a daan néewal doole ñëpp mais parce que xam nga rek. li mu xam naa xam naa Tyson 2 mi mu daan moo tax mu jàpp ni ma lool. mais Tyson 2 ñaar personne la daan eh, parcelle. Fra benn nit la daan fii benn nit. benn nit ba pare ne yow Pikine amul ko mu daan. xoolaatal ba ah man benn nit laa jàpp ni daanul jara. waa ak jara waaw. waa ak ngeer. daanul Tyson 2. waaw mais waa léegi de war naa nga. dafa mel ni dafa mel ni Fra leen lim loolu mooy loolu mooy yaay mun ah kon kon kon kon xanaa waa Guédiawaye yëpp maa leen mën ah, ah daan naa fa jawdin daan fa tampon ndaw yaa ngi dégg daan fa booy mbelax léegi xanaa maa mun ah, parcelle maa mun Guédiawaye kon maa mun Guédiawaye kon mais mais loolu dafa yomb maa daan diw maa daan diw maa mun ñooñu ñëpp. ma daa Franc jegewul xam nga fan la nekk nii. Ah. case ba la toog ba léegi di wax. kaas ba barki yàlla jegewul sax la rond point rond terminus bi kaas ba la toog di ndeel seize mi ko teg fii Pikine ma man sax maa ngi koy jot a ko xanaa Dominique nga ko teg wala seen la soxla ma ne ndox di jéggi pax laa la wax léegi waxal ak moom Franc mu may dégg bu baax dama ni yow Franc njaago bi man ak ci laa la wax bu fekkee gëm nga li ngay wax nga ne na am ku la mën a daan jëlal sama avance ma duma la daan la man maa la duma de caatu boson. Franc su jëlee sama avance ma ko daan ko du ay wax lu may jëf la. looy jëf la làmb ji waaw léegi xam nga dafa nekkoon phase Pikine. ne léegi bul bee tourné. léegi dër bi parcelle Pikine la. waaw parcelle Pikine moom. de. mu muy jeexee franc maak franc bi nii fu muy jeexee coow li mënul nag booy booy njaga nag yéen dafa mel ni yéen dafa mel a xambaat taal bi. coow li coow li laa mënagul jeex. jeer la laa njaw des bi. mu la. Ah. franc lekk na avancé. barke sëñ Bamba. du benn billaay bu ko lekkee xam ni du avance bi mu doon lekk. Ah. du gën doon njaago fuuf. njaago miy ñoddi samay mbokk njaago yaa ngi fii si njaagoy laay nekk si njaagoy laay nekk guddeeg bëccëg billaay walaay si njaagoy laay nekk chaque si njaagoy laay nekk jënumaa jënumaa bokk ak sa njaagoy laa la wax man maa la wax loolu jënumaa nekk njaago laa la lan mën may xaar Franc buñ tëg bu laa ma buñ tëgoon laa ma ji may xaar wër na sëñ Tuubaa bon yow mbëri gars yi nekk fii di wax rek de ah. man xam mu ne ma wax sax mais lamb moo laaj li parce que tamit ñu nekk si làmb depuis boobu léegi di bëree xam nga di daan si nuy morom tamit ñun dañu war a yéeg. il faut nga wax nga wax dynamique bi nga toog def huit combats huit victoire. waaw ba léegi bokk si révélation xale yi war a génn Pikine kon di nga wax. sama génération ñëpp am defet génération bi ñu dem bëre keroog max man grand combat la dem bëre. ñoom seen grand combat lañ dem man toppatoo ma ni sax ñoom man bëreewu ma spécial grand combat la leen bëre sama drapeau laa jël yóbbu. mbër mi bëre premier combat sax si moom grand combat la. la demee nag mais nit ñi dañuy jàpp kii mbër mu ndaw kii mbër mbër bu mag amul. kase mooy seen problème waaw. non parce que tey jii yow imaginel Balla Gaye bu romboon fii gars yi dañ ñaan mbër man bu ma romboon fii dañ ñaan mbër kon mbër la. kase dañ ñaan mbër la mais lan mooy problème bi. kase mooy seen problème te mbër noobul la mbër fu mu mbër fu mu nekk dañ ko war a teral parce que mbër buur la parce que foo jugee nit ñi topp sa ginnaaw léegi moo romboon fii léegi xale yi topp ma njaga njaga njaga njaga njaga. fi ñu toll nii moom yéen TikTok bi. mais mais gis nga loolu yëpp dafa dafa bokk si làmb gis nga loolu mooy làmb ñun ñëpp duñu ay noonu place liggéeykaay place liggéeykaay la parce que ñun ñëpp mun nañ bokk société mais bu ñu wàccee ku nekk sa kër nga jëm mais société bi nag liggéey moo ñu fat yóbbu kon dañuy liggéey après bu ñu génnee nag ndax bu ma romboon nag léegi léegi beneen mbër ak beneen ak mbër jàmm nga seek ak man ah, duma la won reewande doomu won reewande parce que mbëri dofuñu ni si laam yi la ñuy nekk rek di xaw nii mais gars yi ku si génn si mbedd ma ngay respecté dofuñu xamee nañ xamee nañ jaaj ak joor man mbër du ma yàpp voilà parce que loolu la quoi léegi nag ama ba lay daan da koy duma daan ko loolu leer naa la wax du jeex seen booy yi sax nañ xam ne ñun tamit seen booy bi ñuy ñëw sax du jeex parce que daa am lu tax quoi Ama combat boobu ba ñu ko si xeetu bëri si Ama mën Ama bu doole. làmb xale. boo ñaay tafaatin. boo ñaay daan loolu amul xalaat. tafaatin mi. tafaatin mi nga xam ne loxo yi mel comme mbàccum gerte. bàyyi ma tafaatin. déggoo li mu la ñun Pikine dañu mun bëre. ñun yàlla moo ñu defal loolu. kuñ kuñ sekkal laa rek ñu nangul. forcé la loolu. wër na yàlla da ngay ay booñaa yi ñoo mun ay tafaatin yi ah. mais làmb kuñ la boole da ngay bëre rek ah mais gar daw daa garaaw tafaatin tafaatin yow. waaw ah, dina ko daanu pikin ñaari yoon. waay perte yow xaaral ba làmb yi ñëw làmb yi soreetu. ah David de cent pikin bi 100 pour cent pikin bi est-ce que gis na si boppam. non 100 pour cent pikin bi xam nga ñun moom pour cent 100 cent wu la ñun ñëpp mais tey jii nii ñun ñëpp bokk pikin. ku si xew la gars yi dañ la ñëw taxawu kon sans loolu mooy cent pour cent soxlawuñ si xaalis soxlawuñ si dara liñ si soxla daal mooy heure bu nit ñi xewlee ñi dañ la ñëw taxawu loolu mooy cent pour cent man de loolu laa jàppee cent pour cent bi te tamit Boy Niang bu amoon combat gars yi dañuy dem ëkkan presse am dañ siy ñëw jàpp ama noonu gisuma si leader Pikine yi tax ñuy wax mais leader Pikine yi dañoo voyage am seen mu ñëw na si kër gi gis naa ko may na ma xaalis bu bari tamit xam nga tamit kon loolu mooy 100 pour cent ma na ma xaalis bu bari di lu ñu waaye la njàng bu baax xam nga di nuy jabaram xujo tamit bu baax moom kooku moom suma lépp la loolu mooy 100 pour cent ñun Pikine lañ am Pikine amul coow gars yi ngay dégg ñuy wax ni yëpp nu mu fa demee mooy ñi fi dëkkul ñooy wax mooy ñi paas. kon Pikine daa am ay raxal si biir léegi raxal yi mooy benn njaga mooy dem géejawaay am fa benn soppe indi ko Pikine léegi kooku mooy génnaat dem. naan waay Pikine de gain nii ak nii ak nële alors que nekkul loolu quoi maanaam lu ñuy wax noonu nekkul si pikin maanaam daal su ma déggee si wax kër lu fi na nañ nañ xool gan yi. gan yi gan du yeewu béy da ngay gis tey jii nii boo duggoon Medina wala nga dugg biir Dakar ay jamono laa la wax de te pourtant ba léegi sa soo moytuwul da ngay naan doo ñëwee ñu ne la foo dëkkee nga ne dañ lay dañ lay xool di mel ni kuy kii parce que dañuy jàpp ni li am Pikine mooy dañoo ay affaire waga ay affaire yooyu. loolu amul Pikine Pikine jàmm lañ xam ak salaam boo ñu bëggee indil nag loo xamante ni si nii ah mooy loolu de match bi day tas de. match bi day tas de. waaw ah, mi ngi noonu. Ndiaga Thiam nekk doomu champion gis komba bi mu déparé ba fi mu yegg si tey xa tamit Franc nee na digganteem dafa jaadu digganteem ak Franc moom moo ko wax sa jaadu na ndax Franc def na 10 combats 10 victoires moom Ndiaga def 8 combats 8 victoires. kon ñoom ñaar jaadu na te Franc nee na Pikine ko fi mën a daan amut njaga nag moo wax du samay wax njaga nee na fu ko fekk dina mel ni mbàccam gerte sa njaga ku ne combat mu ndaw ne jàppale sa combat bi nii am nga si jàppale ñu baax nga sant gërëm ñi la jàppale di tàggatoo. waaw bisimilah rahmaani rahiim rek di nuyuwaat ñëpp di nuyuwaat sama grand yi baxaw ñi ñëpp bu ma waxee baxaw rek wax naa ñëpp waaw. parce que ñii dañuy sonn si man te defal ma leen dërëm wallaahi maa gën a tuuti nag biir Pikine di wax ni yàlla nañu yàlla di continuer di dimbali bu baax a baax a baax du nuyu nag di jégal waa koñ bi yëpp parce que laa dafa metti da ngay tooñ ñett doo ko yëg képp koo xamante ni si nii njaga tooñ na la wala jàmbur tooñ na la maa ngi lay siy jégalu bu wér a wér a wér di leen jégaluwaat bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama père Alioune Naar Pape di ñaanal sama père si Cissé yàlla yëkkati ko fële mu tëdd di nuyu Cheikh Cheikh Tidiane Thiam jàpp na bu baax bi daanaka lépp moom la mairie koñ yi saako ceeb bi parce que su ma amee combat fii ni nga may gisee nii mairie koñ bi mairie laa la wax de waxuma la mairie de mooy maire waxuma mairie yor gox bi de. mairie yi dem marché mairie yi dëkk si koñ bi ku nekk ñëw yaay jël li nga am nga indi te loolu amul mbër bu ko am man maa am loolu man. mais ñi dañuy indi saaku ceeb ñi indi la diwlin ñi indi la lii ñi indi la lee te wanu ma leen dara loo xamante ni si kii lu dul jàmm ak salaam ak yar ak teggin nekk laa leen wan ñu nekk sama yaay tamit di nuyuwaat sama père alinaar bu baax a baax a baax baax Pape Tuwaawan Modou Gueye Ibou Gueye maa ngi leen di siyaar samay mag ñoom Tidiane mais di nuyu nag kii ma lay wax moom mbay mbay do mbay paala transitaire maa ngi lay siyaar bu wér mbay paala parce que yow mbay mbay sama mag de mais wallahi azim lu may defal amul kenn ku ma koy defal heure bu si moom laa jëm mbay mbay dundal mbay paala mbay paala borom transitaire ak Evra Evra transitaire tamit maa ngi lay siyaar maa ngi lay bëggee doomu nday Ama Baldé Evra mbës maa ngi lay siyaar maa ngi lay bëggee gaako maa ngi lay bëggee Bass Paa de maa ngi lay siyaar maa ngi lay bëggee bu baax a baax sama grand Tidiane waaw maa ngi lay bëggee waa curi bi maa ngi leen di siyaar waa kamb bi Pikine tali bu bees si Ikotaaf euh, Daaru waa tali bu mag buuxante ba ñoom ñoom Pamoussa wax ñoom guy gi maa ngi leen di bëggee sama waa kër maam maa ngi leen di siyaar fi ma juddoo ñëpp maa ngi leen di bëggee bu baax leen wax ngeen ñaanal ma waa angaar buntu Pikine ñëpp maa ngi leen di siyaar ndax parce que ñun Pikine boo xool ñun ñëpp a ñu xam waaw ñëpp ñu xam. waaw ñi xam li may wax nii ñu dem ba si kanam damaa bëgg gars jox ma si mbëri mag yi mbëri mag yi man laa soxla ñi may bëreel duma seen moroom nañ ma jox punkal yi si boppam ma bëri ak ñoom faran préparé xam ni làmb ji boo gëmee sa bopp suba suba suba mu taxawoon ma duma la du muy dog la daan. lu leer daa lay wax parcelle amul mbër nga Pikine amul mbër la mën a daan Modou seen patron laa wax buñ ñu tëjoon si néeg buñ ñu buñ tijjee néeg bi laa la wax ko tijjee fekk ma yëg si kawam ma nii naa sëñ Modou Habib amul mbër parcelle la bu moo mën a yëngal seen booy sax soxlawu ma leen seen i garant laa la mbër bu mën a yëngal parcelle mbërum ndaama yaay fa nekk jéem leen ut ay mbëri njool mbërum ndaama mënu ma fa daan yow baalum génn si combat am bi nga xool ñu jox ma ñu paas ma ko ma ko fële nga ma nii amul mbër bu may taxawal mbër bu ma taxawal mbër bu ñu jox sama avancement la mën du ma du may mbër bu ma jox avance am laax nag ma xaar xam ne damay ñëw par force damay ñëw amul mbër bu may taxawal naan dama lay xaar sama ginnaaw damay ñëw li maa wax mbër bu may bëreel préparer xam ne da ngay dem estati loolu moom na nga ko xaar moom. xam li ko gën neex si làmb mooy mu jàppale tent la yow nga ñëw ne yow bëri eset nga leen di yóbbu. eset laa ni yóbbu parce que yow ba nga waxee rek li nga li ma la njëkk wax mooy du mu lu mu lay wax mooy du yàgg dara léegi léegi fii di yéegi digg du yàgg. Ah. mais yow bu dee da ngay bu dee yow li li li kii li muy wax dëgg la ah. déglu ko dem na si biir géew bi xool ko li nga ko waxoon li na wax lu mu la wax ndax dina ko def wala du ko def te automatiquement loolu laa def kon nga war a xam ni kon kii li mu lay wax dëgg la te li mu lay wax nii nii mooy li nekk si man ma ne mbër bi ma jox xaar ma xam ni damay dal sa kaw. nga ne foo jëm moom. Franc man njaga caatu boson buñ bëree laa la wax mu yóbbu la eh. estati nii laa la wax ñëpp di la TikTok ah, déggoo li ma la doo gaaw sa jóge si TikTok bi laa la wax lu leer laa la wax mbay bu paala maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. waaw mention spéciale parce que yow jàmbaar nga jàpp nga si affaire bu baax a baax a baax di am contentement nag si yow bu baax Cheikh Tidiane Thiam duñ la mës a faate lu bëri yaa ñu ko defal xam nga sama père Alioune nag dama lay sant bu baax a baax sama père Paala xam nga di nuyu nag sama waa atelier booy yi fa nekk yëpp maa leen bëggee waa Guédiawaye te man Guédiawaye laay liggéeyee waa Guédiawaye yëpp maa leen bëggee Tafa Diagne sama gaay yëpp maa leen di siyaar xam nga leen nuyu ak waa curu bi foofu. waa curi foofu maa leen di siyaar Baye Daouda fàttewu ma la yaay borom tëngeej yow xam nga nu mu demee ak sama copain bi nga xam ne mooy sama géwélu juddu kii man nag moom ñoo defandoo avance ba nu màggee nii te ba léegi ñooy ànd sama dërëm mosuma fay te heure bu làmb amee mu ñëw defal ma lu ci war soxlawul ma dara ndax man ak moom yàgg na daal di nuyu nag waa koñ Falaay bi zone boobu parce que gars yi la lépp Pikine la. lépp pikin lañ ndax ñun ñëpp ñoo département pikin yëpp maa ngi leen di soir di leen wax ngeen ñaanal ma waaw sama père dégul maa ngi lay béggee bu baax yow sama père nga waaw mention spéciale yow sama père nga moom di nuyu ñëpp père Gana tamit maa ngi koy soir bu wér a wér wér wér waaw Serigne Adja waaw di nuyu nag sama papa bu baax sama papa maa ngi koy ñaanal mu am wér bu baax a baax a baax parce que ñun suñu papa lañ am ku bëgg suñu papa moom li lañ lay bëgg man ku jàpp sama papa ma jàpp la ku bàyyi sama papa ma bàyyi la parce que man sama papa laa am non moom jàmm bàyyi faal la ki taalibe maam seera faal la mooy sëriñ yoon la ak a wér billaay walaay kon am nga sëriñ parce que ñun mooy suñu sëriñ ñun médailles yi nekk fii laa la wax ku mu si ràng doo dox parce que xamul tax sama papa dafa bëri li mu bëri te pourtant fayeekul dara ci làmb te xam nga mooy loolu. nga xam nga ne Pikine comme de. waaye père kii mooy seen capot. manager Ama bi. ah père <laughs> bi kooku ku ku mu jàkkaarlool mun na la kalaate loolu mooy conseil mbër. <laughs> dóor ci bëll gi. ma mbër bu ndaw du xalaat. lu waajoo naan kaana lu muy wax naan ay kaana xalaat effectivement de mbër bu ndaw kaana la doon kaana la parce que mbër bu ndaw du xalaat peut yaa ngi entraîné rek waroo xalaat looy xalaat. waaw ah, man li am. <laughs> yaa ma lu nekk ci am. moo tax dañuy sant yàlla rek. baax nag. <laughs> di bu baax a baax a waaw di ñaanal ñu woo la rek. Mm-hmm. tey nga ne ñëw leen. Mm-hmm. ñu ngi lay bu baax a baax a baax. da ñaanal sa carrière gën a continuer. amiin gën a xam fi ngay teg sa tànk. Mm-hmm. xam ne ñi nga gis fii keroog esat du sax sas la. du sax de sas la. sas nañ la loo xam ne nga xam ko nga ñàkk ko xam sas nañ la. ndax li ma sax du rek mbër mun naa am lépp waaye munu pour mu duy esat bi ay mbokkam kese mun ñëw fa si esat bi. kon jàmbur ci biti at ñi nga doon àndal demb ak mbër ki démb. yaa ñoom la. gën la góorgóorlu gën a xam fi ngay teg sa tànk bu baax baax baax SBT nag ñu ngi lay remercier bu baax a baax di jox sa wàccuwaay bu wér a wér mm-hmm. maa ngi leen di bëggee nag di ñaan site bi yàlla yokk ko mu gën jëm si kanam ngeen am si yeneen ak yeneen ak yeneen parce que yéen làmb ngeen di jàppale quoi mën naa ne mën ngeen si bay am dara mais moo leen ñor euh, gis na nit ki ma làmb daa nekk loo xamante ni si nii porum Ndakaaru la bata dem bata kose parce que ñoom Balla Gaye avant ñu fi ñëw ñoom Tyson ñoo fi nekkoon ak ñoom Baboy tey jii nañu ba pousse nañ ñeneen ñëw tey ñoo ñëw ay ñoom Modou Lo xoola ñoom Ama ñëw nañ kon ñun ñii tamit dañuy ñaan yàlla yegg bu ñu yeggee ñun tamit ñu ñaan yàlla yëkkati yi booy ñu ñëw yéeg parce que ku nekk war nga am loo yóbbu sa kër parce que kay dajji feeraay kay daaj bant ñëpp dépense bu ñu yóbbu seen kër dañuy wut mais ñun dañ gën a metti le rek si benn côté mooy sport moom metti parce que tey mun nañ la jox cent million mais cent millions yi mun nga ko bañ a jariñoo parce que yoon bi moo sori te dañoo am suñuy suñuy réalité Sénégal muy am nañ suñuy maam yi fi nekkoon xam nga boo amee combat di nga ñaanlu xam nga di nga génnee sarax di nga def nii di nga def ne waa koñ bi mairie koñ yi ñenn ñi ñëw paa ku nekk ak programme am ku nekk ak problème am te da ngay ñaan yàlla nit bu ñëwee si yow. diis sa soxlaam da nga ko war a faj boo ko yoree quoi même boo ko yorul war nga si mën a taxaw xool koo ko yóbbu mu lijjantil la ba nga boobu moom problème am faju kon moo tax ñu ne la mbër dafa bëri ginnaaw moo tax mbër mënul am xaalis làmb mënul fay mbër moo tax man damay ñaan yàlla man même bu ma ko fekkeewul yàlla na mbër di fayeeku milliard bal billaa walaay même bu ma ko fekkeewul bu ma ko fekkeewul man si kaw suuf mbër dem bay fayeeku milliard parce ku bëri kii bëree rek a xam lu si biir chaque jour ñu daan mbër nag nit di ko ñaawal wala di ko xuloo wala kii mais billaay làmb dafa metti barki alxuraani karim di nuyu nag mafia Paradise sama gars duñ nelaw billaay walaay di nuyu sama mbokk njaagoy nag waaw waa Ridis maa bu baax a baax a baax di nuyu sama gars yooyu yëpp ñoom di nuyu ambourage ak sama copain bi Feeraay Fara parce que ñooñu su ma ko combat di ñëw chaque jour di jàpp si affaire yi samay ay samay mbokk mbër lañ quoi xam nga di leen nuyu nag bu baax baax naa leen liggéey bi ñu dem liggéey yëpp lii la woon te nañ préparé waat yeneen si ni kanam parce que bu ñu sañoon tey tey ñu joxaat ñu avance ñu nekkaat si lu ñu nekkaatoon waaw waa Mbour Saly Manikula di leen nuyu bu baax ndax ñun bu ñu tey tey ñu joxaat ñu avance ñu téye billaay ñu bañ a am temps wu temps wu xalaat da leneen kuñ ñu jox nii ñu jël. wallaahi azim kuñ ñu jox tey fu mu gën a dëgëree nañ ñu ko jox fu mu gën a woowee ñu naan kii fi mën kii fi gën a dëgër boobu kii fi gën a kii léegi maanaam suñu génération ku si gën a të nañ moo ko jox waaw gaa yi dina leer gën ki si gën a ah, ah. yi nee gaa neewuñu kii la caatu euh, yoof loolu la ñu wax loolu laa dégg de ñu ne ñu ne moo daan ñëpp waaw ah. loolu laa dégg xaw ma nag nag moo si mën parce que man mënu ma loolu laa dégg quoi mais bu dee moo fi moom nañ ma ko jox man maa mën sama génération man. mu nekk ñaari caat. voilà mu nekk ñaari caat. waaw par force kenn day génn day màgg te maay màgg man. Ah. waaw. sama yi bu baax a baax a baax di leen ziar di jox seen wàccuwaay bu wér-wér di leen caatu Pape Diop Boston wax njëkk a caab di ziaraat kulluum nag kuy safoo la bu baax a baax ziar la jox la sa wàccuwaay bu wér di wax nag li mu seet si mbër mi ngi noonu sa xale bi lañ sa seet si woon. di wax beneen émission ak beneen xale fii si SBT Média kese rek donc lay doon yàlla mi borom jàmm nag su kum jàmmal nga am jàmm yal nañu yàlla defal jàmm ndax garabu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé doon ko yàlla yàlla defal jàmm defal ñu tawfeex di def beneen émission ak beneen champion fii si SBT Média kese rek donc lay doon alaaji Maas doxal la ñu dem borom ñaari galon yi